Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatu bok al-haq sabit ñoo len di nuyu bax di len siyaar di ñaan yalla kaddu gi fekk len ci jàmm tay ji nek bis ci bis yi nga xamne imam Pape Mouhamed ndey lotaabe na ci jotay xam-xam ci yi nga xamne mom lañ koor wi mu tan ci ay waru xam-xam ku nek ci la nga gëstu tay nak ñi waxtane ci ndax violence ak politique ay bokk lañ ay seex lañ mën nañu ànd wala déet wala dañ ko ci rax te bokku ci euh, muy koo xam ne ci la ci la ab gëstoom jéng jëm ndax faculté science ak ci la ci ci la ci la euh, gëstu euh, yaakaar naa ñu bari xam nañ ko fi ndax jaaroon na fi jaaraat fi kon moom la àndal tey ci jotaay bi incha allah bu ko defee nu bàyyi ko kàddu gi. bu ko defee incha allah mu dikk ak ñun waxtaan ak ñun ci e, ni ñuy gisee mm, politique ndax dafa ànd ak violence wala politique kese moo mën a dem e, sans muy ànd ak violence wala ñu séparer leen wala dañoo war a xalaat mel ay cheikh incha allah bu ci dikkee dina ci indi ay leeral yu yaatu yaatu kon noo koy bàyyi kàddu gi wasalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokkel xaq thabit wal baatil zahiq ñu ngi leen bu baax a baax di leen ziare di leen ndokkeel ci weeru koor bi di leen xaq di leen xaq di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa mu defal ñu jàmm ak salaam maa ngi fekk at yu bëree bëree bëri suñu borom bi nangu suñuy jàmm yàlla fulut lu la ko neex suñu woy dawru yi yal yàlla xar àjjana jéggee leen seen bàkkaar te defal leen yërmande ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziara di suñu yoor imaam oustaz Papa Ndiaye suñu xarit suñu wolore di nuyu suñu Kamal Ka di ko nuyu baax di ko ziara di moom rek di nuyu mbokk yëpp di naat benn audio xam naa ne suñu waxtaanu tey mi ngi aju ci violence ak politique comme ni ko suñu Kamal waxee ndax ñoo ànd wala ànduñu waaye nii nit ci leen ay nit leen boole xam naa ne suñu wet gi nga xam na moom laa ko bëgg a gëstoo euh, ci côté politique lay gën a jëm ak ni ni ko àddina bi di gisee ni ko yenn borom xam-xam yu bare bare gisee euh, côté bi nga xam ne moom moom mooy gëstu bi nga xam ne moo aju ci islam moom dama koy bokk dama koy bàyyi mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ma ko gën a maîtriser incha allah xam na ne ñoom yéen ci ñëw gën koo leeral kon incha allah ñu tàmbali waxtaan waaw xam naa ne def benn introduction bu ndaw rek ci li ñuy wax euh, violence politique ñu wax rek ne amul dara loo xam ne dafa di bees ci violence politique violence ak politique ñoo ànd moo tax ñuy wax ne sax adanbul ah. asasi awil as adanbul asin mooy mooy ci politique mooy violence bi ci nekk violence bi nag ñu koy gëstu ñu bare bare lañ ku nekk ak xalfiyaat yi nekk si ginnaaw ba grand bi nekk si ginnaaw ñu ay fuqaha lañ ñuy ahlul hadis hadis ñii nekk mufassiroon ñii nekk ay historien ñii def géographie ni de science physique ni de science naturelle ni nek ay médecin ni nek ay philosophe ku que nag ni interpréter le violence maintenant ak sa borom su borom ko ndax idéologie qui ci nit violence violence rek du dara loolul mooy am na la fi nekkoon aw tërëlin wu fi nekkoon aw doxalin fi nekkoon am ñu taxaw ne doxalin woowu dañ koo bëgg a soppi indi fi weneen doxalin langage bi ñuy utiliser ñoom day wuutee ak langage bi nga xam ne ñu fi nekkoon moom lañ daan utiliser su ko defee loolu daanaka moo daan indi euh, violence ci société maanaam bépp système bu fi nekk wala doxalin ñeneen ñëw indi fi beneen bëgg indi beneen façon doxalin bu bees beneen beneen système bu bees loolu ñuy jëfandikoo pour dinde loolu loolu dañ koy tuddee tamit violence euh, xam nga politique yi yi nga xam ne ñoom ay dictateur lañ ñu basé ci dictature pour di gouverner euh, képp ku fa ñëw rek di wax ci démocratie di wax ci liberté yow moom dañuy jàpp ne da nga ñëw pour salfaane salfaane système bi fa nekkoon maanaam yow da ñëw pour indi violence yow da ñëw pour indi soppi. su ko defee ñi nga xam ne système dictature bi daf leen a arrangé ak ñi nga xam ne ne dañoo bëgg a fipp dem ci liberté su ko defee faw seen diggante am lu ñuy tuddee alonf violence violence boobu nag lu gën a bari ci ci verbal lay jugee waaye violence aussi dina nekk violence physique ndax état bi nga xam ne moom moo yor police am yor gendarme yor doole mën na ko utiliser pour bëgg statu quo nit ñi dund gi ñoo dugg continuer dara bañ koo soppi képp koo xam ne yaa ngi dox wala ngay wax soppi loolu soit ñu tëj la kaso wala ñu duma la ñu rey la kooku mooy violence bi xam ne moo ci am ñi nga xam ne na ñoom dañoo bëgg a système yi bëgg leneen nekk fi lu wuutee lu wuuteeg li fi nekkoon ñooñu seen langage bi ñuy utiliser day violent ndax langue langue langage rupture la waaw ah, langage soppi la su ko conflit yooyu kii am intérêt mi bëgg koo nangu ki xëy xañoon wala ki am àqam te bëgg koo jël faaw loolu mooy indi loolu faaw muy jóge ci day jóge ci ci violence verbale seulement demaat ci beneen suñ def lu ba lu bari day dem ci beneen violence physique loolu nag yenn saa yi mooy indi ay xeex ay guerre civile ak ay soulèvement populaire ki nekk ci société bi nag euh, day nekk fii wala mu nekk fee rek nekk ci idéologie bi wala mu nekk beneen idéologie euh, moom toujours day jéem a interpréter euh, loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee violence politique euh, ku nekk nag wàcc jëmale sa kanam di wàcc jëmale sa kanam euh, ba loolu day tax yenn saa yi ku nekk day tuumaal sa morom ne ne moom moo jiite violence waaye li nga xam ne moom wër buur mooy ñi nga xam ne dañu opprimé ñi nga xam ne dañu na euh, not. Euh, néewal leen doole seen ak amuñu ko woon li wóor bu wóor mooy bis dinañ taxaw euh, xeex pour seen ak joojo ak nooteel boobu deñ dinañ fexe ba ñi ñeneen ñi nga xam ne ñoo amoon ay privilège te privilège du mérite lalu ko woon loolu noggatu ak ak doole ak jaay doole dañuy fexe fexe ba loolu deñ loolu nag ci société pour mu deñ day indi boo xam ne Euh, mën naa yaatu waaye mën naa gàt mën naa nekk violence boo xam ne juz i la wala waaye mën naa nekk violence chamil loo xam ne day matal daal mooy dëkk yi nga xam ne dafa am genre guerre civile waaye xam ngeen ne violence moom ak dox dox wi am réew di doxe violence mënu cee ñàkk violence mënu cee ñàkk soo jàngee histoire yëpp ba fii ñu toll di nga gis ne société yëpp violence dafa mas am ba ci islam bi muy door di sosu gis ngeen yonent bi ak jullit yi nga xam ne ñoo njëkk dugg ci islam gis ngeen mbugal yi ñu leen daan mbugal yu mett toroxal yi sonal gi xiifal gi gis ngeen ko ba violence boobu dafa poussé ñi nga xam ne ñoo njëkk ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy dem ci sax hijra seen aw seen hijra bu njëkk dem Habasha Éthiopie waaye julli bi ñu jëli soité ba commencé am doole waaye gis nga ñoom it dañoo taxaw utiliser violence pour défendre seen bopp waaye défendre seen xaq-xaq waaye défendre seen pas-pas ndax fekkoon ne Euh, jihaad boobu bi sayf gàddu jaas di xeex fekk loolu amul woon yaakaaruma ñu yaakaaruñu woon yaakaaruma ne tey jii islam fi mu toll tey jii doon fi toll moo tax bu fekkee da ngay def ay climat da ngay jàng société euh, soo xoolee benn société nekk ci dangay jël tuuti recul bu fekkee nee nañu violence am na da ngay jël tout recul nga xool ndax violence am na bu fekkee ne am na nga xool violence bi ak côté bu mën di jógee ka koy def lan moo waral mu di ko def ki nga xam ne mooy subir ko violence bi aussi joxoon moom it lan moo tax mooy subir violence ndax violence yenn saa yi mu dagan xarbu ridda xam ngeen a xam ngeen ko violence la Abubakar Sadiq radiallahu anhu mooy utiliser pour préserver islam ak principe islam ak yoonu islam waaw su ko defee violence tel que violence rek du lu négatif waaye violence yenn saa yi lu positif la ndaxte euh, xasaas su amee ci islam ku àtte ku def dara ñu àtte la loolu euh, faw loolu sorte de violence la dañuy utiliser violence euh, contre nit ki waaye nag bii violence positive la de violence négative moo tax toujours suñuy jàng violence dañuy xool ndax violence bi violence positive la wala violence négative la violence bi ñuy utiliser hal huwa mubarrar aw xayru mubarrar ndax mënees na koo layal ne gis nañ nécessité la wala nécessité amu fa xam naa ne pour jàng violence ci biir société bi dañuy jël am na ñetti cas yoo xam ne daanaka mooy représenté euh, mais représenter euh, façon violence yi nga xam ne moom mooy société bi façon violence façon violence yooyu ñu euh, ci violence bi am ñi manifester parce que dafa institution boo dafa dem ba jël àq àq nit ñi dem ba jox boppam doole ak sañ-sañ ak mën-mën boo xam ne nag amu ko woon léegi bi loolu amee ah nit ñi génne manifesté wu benn violence bi am mooy terrorisme beneen bi ci des mooy société bi moom dañu xëy xëy rek insurrection am su insurrection am mooy benn révolution bu mag a mag a mag mag am eh, ñett yooyu yenn saa yi mu nekk benn benn waaye yenn saa yi ñu ànd ñu nekk benn par benn waaye yenn saa yi ñu àndandoo beneen cas bi ci des mooy fi nga xam ne euh, violence politique bi dafa yàgg lool diir ay ay at wala ay weer wala ay mois wala sax ay génération waaye na dafa am yàgg euh, bam amoon mu di ko ñàkk lu mel ne kaawu Casamance nga xam ne foofu léegi possibilité négociation ay arrangement moom rek mu ko sës bi ci mooy discours yi ñu pour la révolution pour changer pour violence discours yooyu dañuy demoon dama yàgg mu réussir wala ñu demoon dama yàgg mu far seey kenn xamatu ko comme affaire yu bari fi amoon rek yu mel ni socialisme yooyu suñuy tëj amoon na doole jéeg ba ci kaw waaye dañuy demoon dama yàgg far disparaître parce que violence boo fi amoon disparaître complètement xam nga ne euh, àdduna bi am na fi ay professeur université euh, yu bari yoo xam ne ñoom dañuy spécialisé wu ci euh, la paix et le conflit conflit et paix am na ñu bëree bëri ñoo xam ne bind nañ ci ay taalif na ci ay téere yu bëree bëri ndax conflit fu mu amee rek am na violence nag Eh, jàmm da ko doon jiitu wala jàmm tegu ci eh, su jàmm jiitoo nekk ci réew société ba nit ñi dañoo war a gëstu ñu surtout ñi fa am responsabilité dañoo war a di gëstu war di dox war di wax ba jàmm jooju amoon ñu fexe fexe ba jàmm ji mën a wéy mën a law mën a continuer jàmm nag suñ ko waxee mooy justice moo ko lal dëkk bu amul justice amul yoon am kumba am ndey kumba amul ndey foofu jàmm du ko yàgg loolu du jàmm ndax jàmm yenn parce yenn nit la waaye du jàmm ñëpp jàmm su amee dafa war nekk lu général ñëpp ñu nekk dëkk bi sant na réew mi am na jàmm kenn sañul tooñ ma képp koo xam ne jalgati wala ma tooñ la am na foo xam ne sama la fa yóbboo mu teg la ci yoon ak képp koo mën di doon amul kenn ci société bi benn institution wala benn nit société bi ak poste boo mën di am ba nga xam na yow say prérogative mën nga koo yokk wala nga sukkandiku ci di tooñ nit euh, jaamu jooju ci société ñëpp war nañu ci lañu war a dox pour di ko sàmm ndax euh, jàmm moom day daw rek yëpp bokk nekk wala mu ñàkk su ko defee képp koo xam ne nga am responsabilité ci mu réew war ngay dox di wax fexe ba jàmm am ci mu réew mooy justice al adala al adalatu al adlu moom al adala moo koy al adalatu al musawaat loolu moo koy waral ak kenn ku ne xoxoox yi nga xam ne su moom la suñu borom jox al wataniya citoyenneté jox la ko ñu bañ la ko xañ jox la ba mu sëkk ci loolu rek lañ mën a sukkandiku pour mën a am société boo xam ne jàmm moo fay law yaatu fa ndax mbirum répression rek euh, képp ku yaakaar ne mooy indi jàmm ci réew euh, xam naa ne sa xam-xam ci histoire bariwul ndax nit ñi nit ñi euh, li ñu ragal bariwul wala am na ñu bari ñoo xam ne li ragal bariwul te répression mooy benn genre boo xam ne état moo koy yor di ko jëmale ci population am euh, su lalwul ci dëkk su yàggee rek day wëlbatiku ci kaw wala nga ne day wëlbatiku ca kaw ñu ko daan ñu ko daan jariñoo moo tax nga am réew suñ fa nekkee euh, li war a ñëkk xam mooy am na ay loi am nañ constitution wala am nañ diine joo xam ne moom dafa jox ki ku nekk sa xàq ak sa yeloof sa yelleef wax la say devoir ak say masoliyaat société boobu ku nekk ñu jox la sa àq ak sa yelleef waaye say masoliyaat tamit ñu teg la ko nag nga di ko assumer loola rek moo mën a tax ab société ni ñëpp yëg ne ci société bi lañ bokk ni ñëpp yëg ne kenn xañu leen seen seen àq waaye lañ lañ leen waroon jox yëpp jox nañ leen ko loolu su amee rek sentiment boobu dafay tax cofeel ak mbëggeel gën a law ci boobu société waaye lépp lu loolu menace boo mën di teg contre nit ñi dinañ ko def ndax teggi onf boobu nga xam ne maa ngi ko teg ci noonu xam na al amnu suñ koy wax mooy jàmm sécurité bokk na ci bi ci gën a rëy al amnu al xidaay yi al amnu mooy nit ki sécurité bi njëkk gën a bokk na gën a am solo mooy nit lekk te mën a lekk mën a naan ndax nit fekkee ne mënul na lekk mënul naan euh, physique am jëmmam ji mu am sentiru ci sécurité kooku lu nekk mën na koo def te kooku du am benn sentiment bu positif bu jëm bu jëm ci ñim bokkal société bi Euh, comme dañ ko waxee nag violence physique euh, violence euh, politique suñ ko waxee lépp lu jëm ci affaire waaso ci la bokk lépp lu jëm ci affaire religion ci lay bokk même ci biir religion bi soo demee ba li mel ci diggante violence bi am ci diggante ahlu tasawuf alwahabiya loolu sot la ci violence yi violence yooyu nag moo détruire dëkku mel ni Rwanda sud bu Soudan moo tax tamit ba mouvement terroriste yu mel ni génn fu mel ni Irak ak Syrie ba ci Burkina Faso Niger Mali Algérie Tunisie ak Yenen dëkk yu dul jeex ak Irlande problème religion euh, nit bari violence politique moi moi indi ay nit pare pour rey ay millions millions yeneen nit ay nit comme ngir rek eh, ay intérêt wala sax yenn saa yi problème ay nit ñoo xam ne dañuy gis ay yeneen race jàpp ne ñoo leen supérieur dañ leen a war a exploiter dañ a war a utiliser ñu fexe ba songu leen wàcc seen kaw violence boo xam ne bu doy war la eh, langue tamit dinay waral loolu violence daa day classe tamit sociale ñi am ak ñak dina dem ma xamne xam ne violence daf ci am violence bobu nak dinañ dem a dem dem ba mu dugg ci suñu suñu système judiciaire ñu dem ba nga xamne ne tribunal dafa melni ni ku am doole rek soo ko demee la nga bëgg nga am ko waaye ku ñëw doole soo ko demee dinañ la bëggal teg ci àtte boo xam ne méritoo woo koon sax loolu lépp euh, euh, violence politique daf koy indi ci société bi moo tax violence politique bu fekkee dafa jóg ci société euh, ndax du mën a ñàkk waaye war nañ fexe ba contenir ko fexe ba ndar kàpp ko ba nga xam ne maanaam fenn fa du fa àgg. mel ko ku taal daay. soo bëggee taalub daay euh, te bañu daay gi àgg feneen ñu ba dañuy wax ne da ngay da ngay bay diggante ak feneen su bàyyi la la ko war a lakkal nga xam ne su lakkee lakkee lakkee ba nga xam ne bàyyi ko mu set du su ko defee euh, loolu di nekk yenn saa mën a nekk mën a continuer contenir euh, vélance ba nga xam ne du jël benn proportion bi waaw. xam naa ñu jël suñ bëgg a jël euh, violence politique contextualiser ko ci suñu société Sénégal bi ah dinañ gis nga violence politique euh, yàgg na fi am tamit yàgg na fi am laata colon yi ñëw suñu réew yi ci biir réew mi diggante buur yi waaye ci même royaume bi ci même royaume bi ci même euh, famille royale bi violence politique daana ci am bi tubaab yi ñëwee suñuy diggante ñoom li ci amoon du dara lu violence politique euh, bañ jël indépendance bañ jëlee indépendance it violence politique bi continué na diggante Senghor rek ñoom fi nekkoon diggante Senghor ak Mamadou diggante Senghor ak étudiants yi grève 1968 euh, diggante Senghor ak syndicat chemin de fer du Thiès wala bu Sénégal weeraaf euh, tamit kon ne diggante Abdou Diouf ak police diggante état bu Sénégal ak almustarsi almustarsidiin almustarsidaat événement boobu diggante Abdoulaye Wade ak Abdou ba ci maître Sey xam ne ci la ci la ñàkkee violence politique yi kon lépp ci jamonoy Ablaye bi mu fi Ablaye Wade nekkee taala si yi ñu ko dóor nit xam ne dugal nañ leen kaso ci dara lu noggatu kaaw mel ne kaaw ak ñeneen bi Ablaye Wade demee Macky Sall toog kaaw Karim violence politique ndax Karim ab liste lañ defoon Karim mbokk ci ñoom waaye liste ba yëpp Karim dong lañ ci gis mu dugg kaso eh, ka Khalifa Sall violence politique la ka Barthélemy Diaz ak ki ñu ki ñu wax ne nervi ñëwoon ca meeram mu dee loolu violence politique la waaye diggante euh, waa Pastef aw camp Macky Sall wala ak état bi ay violence politique la kon ñun Sénégal kon fii senegal violence politique yi mucc ñu ci euh, ñu bari dee nañ fi ci at yi alawan lab ba prop bëggee pro ba mu troisième candidature ay di dem sonko bañ ko convoqué tribunal ay nit dee nañ ci barki demoon njaay événement yi passé nii ay nit dee nañ ci ñu bari dugg ñu ay violence politique la euh, suñu réew yi nag yaakaar naa na pour violence politique yi jóge fii dina xaw a ndax ñetti mbir bi ci njëkk ki nga xam ne mooy yor nguur gi parewul mukk mukk mukk mukk ngir bàyyi nguur gi ak kenn parewul ngir baye nguur gi ak kenn lool ma bi ci njëkk kon lépp lu mu mën def dina ko def pour préserver nguur gi ñaar ba mooy ñi nga xam ne yoraguñ nguur gi ci te kontaan nañ ci nguur gi ñoom it fi ne dañoo pare pour jàmmaarloo ak nguur gi ndax man ko fay jëla mën a toog place am beneen bi ci des ñaar ñoo ñëpp lu tax ñoom ñaar ñëpp ñu prospérer ndax am sa bëgg-bëgg ak ko def bu Sénégal dafa am justice indépendant bu tribunal tribunal dafa indépendant comme nous, koy defee ci dëkk yëpp nga juge rek président wala président jël décision décret juge jóge fële décret bu fekkoon ne yooyu am na suñu dëkk bi a séparation des pouvoirs bu fekkoon ne amoon na suñu dëkk bi dinañ mën a garanti ne eh, dal gi am Sénégal ak jàmm gi fi nekk dina war a mën a continuer ci jàmm ak salaam waaye nag bu fekkee ne dafa am ay ay kuréel ay quelque individus di profité ci état di utiliser moyen état di enrichir te loolu du loolu ñu dul ñuy. waaw xam naa ne rek di wax ne euh, xam nga politique moom pour ñu xam ko d'abord il faut ñu delluwaat définiraat ko politique mooy lép loo xam ne moo aju ci ni ñu réew mi. te mu concerné képp koo xam ne nag citoyen nga rek ci biir dëkk bi képp koo xam ne rek réew mi ni muy doxe ñor na la nga di ci wax wala nga di ci jëf yow yaa ngi def politique muy saaq tamit ak wax dëgg léegi nag violence ak politique yaatu na de junjoon naa ne ci biir dawla islaamiya gis nañ fi violence waaye dangay seetlu ne yenn saa sax ñu teg ay ay mécanismes bare bare bare pour fexe ba violence di mën a am waaye il suffit que benn dérive bu ndaw am rek waaw su ko fee violence daal tas ci biir société bi dañuy xool xulafaa arbaay yi nga xam ne dañuy lay boom li leen boom du woon dara loolu ay position politique moo tax ñu boom leen bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li mu fi liggéey yëpp bi mu fi génnee àdduna gis nga yàggu xarbul jamal ñëpp xam nañ ko ñi taxaw fee ànd ak sayyidatuna Aïcha ñee taxaw fee ànd ak aliyun karamallahu ay julit di jàmmarloo gis ni ginnaaw gi tamit Muawiya moom it gis nga ni def ba daanaka mbokk yonent bi yëpp dañu leen faagaagal bi balance boo xam ne seddaal war ci biir jullit te dara war lu ko ludul politique loolu dafay ne politique am solo am ci ba nga xam ne daanaka malgré euh, liggéey bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéey muy liggéey bu rëy mbokkale jullit yi dajal neen bokk dajal seen kàddu bu nekk benn def si ñoom ak ragal yàlla mais su problème politique posé ko rek daanaka day mel ni liggéey ba mu liggéeyoon lépp dafa raxasaay nga topp ko fii ci Sénégal El Hadj Omar Foutiyou Tall waaw ah, nga xam ne sëñ Moussa Ka kon jaadu El Hadj ah, nga xool fii booy fi nekkoon seen diggante nga topp ko dëkk par dëkk dëkk boo ci dem rek dangay gis na violence bi politique bu ànd na kenn ba su maa xam ab société boo xam ne politique bi séparé wu na États-Unis Donald Trump fan yii ci lim nekk loolu loolu du violence su demee États-Unis soo ko fa di of Islam la nation islamique bi El Hadj Mouhamed créé woon te Louis Farrakhan yor ko léegi seen position yi waaye au sein des mêmes nations islamiques day gis Malcolm X ni mu nekk ba génn ca dañu wax ne ñoom sax ñoo ko rey Cheikh bi nekkoon ci des nations islam bi mu génnee ci nation islam aux États-Unis gis nga day jàppale sax ñoom ñoo ko rey nga topp ko dëkk par dëkk soo demee Égypte diggante xarakatu ixwaanul muslimina ak état bi xool ni méttee nga topp ko di topp dëkk dëkk dangay gis ne daanaka siyaasa moom moo violence eh, dara mënu leen a séparer li ci mën a musal nit rek mooy nekk dëkk boo xam ne dañ wax eh, eh, de droit dëkk boo xam ne am nañ pouvoir yi ñetti pouvoir yi su sulta ak tashriya ak sultatu tanfidiya ak ñu am séparation am indépendance ba ku mën a dox dox di def liggéey nan ko war doxee loolu rek moo ci mën a aar ab société waaye fépp fépp société boo xam ne daanaka société tanfiidiya mooy par exécutif bi moom moo yor lépp ci réew mi moom moom mënoo ci mucc du mucc mukk ci violence violence ndax am na violence ci gën a bari nit ñi dañu suñu violence rek nit ñi yi ñoo koy indi ay violence Eh, bi ci ëpp solo bi ci gën a metti ci àdduna bi eh, état bi ci bopp état ci boppam moo koy def moo koy def soo demee Afrique du Sud bi eh, violence bu fa amoon apartheid du woon ay individu état bi la woon demee états bi moo ko yoroon moo ko indi woon arab yi bare bare bare bare violence bu nekk état moo koy jiite ndax day yow yatam rek képp ku waxoon li mu wax rek wala ku ci àndul rek tëj la kaso wala ñu la da ngay ñu diw dee na xam nga yooyu violence la xam ne eh, état moo koy def fii ci Sénégal gi violence bi fi nekk nii bi fi gën a bi fi ëpp solo état moo koy def ndax ku ko neex mu jàpp yóbbu kaso ku ko neex mu jàpp yóbbu ku ko nekk ñu ñu la waaw am na ñoo ngi sax da ngay xëy rek waaw loolu violence yooyu moo tax euh, lu bari nga xam ne état moo ko jiite parce que état du ko def loolu bëgg préserver pouvoir bi nga xam ne moo ko yor moom la yor ak avantage yooyu nga xam ne moom moo ko yor di di nag di layoo nag ne dañu muy def nii da koy def pour intérêt réew mi da koy def pour stabilité réew mi waaye aram na ko loolu taxul. réew enrichi lu ñu nattam fi Sénégal ndax àddina bi ña fa am xaalis. richard yi ay businessman ak ay commerçant la ñuy doon mais ñun suñu société yoon wi gën a gaaw ci am xaalis du dem def du dem def business du dem nekk commerçant waaye mooy jaar ci politique mooy yoon wi gën a gaaw am xaalis lépp loo bëgg ci àddina nga am ko tànk nag suñu réew moom noonu la tëddee euh, manam jàmm juñ fi wote jàmm la jo xamne ne dëgërul lu ko naawal da yomb lool ndaxte dafa am benn doxalin wuy boo xam ne dëkk boo gis mu am fa xamal ne doxalin wii du mën a wéy ilal abad am na àpp àpp boobu nag pour ñu àgg ca ay nit ñoo koy dox ñoo koy wax su boobaa nag privilégié yi ko am di ci bénéfice ñooñu duñ ko nangoo ba mukk ñoom it da leen di jaral lu bare bare bare bare bare su daa fee nag loolu mooy tax violence fii ci Sénégal suñu góorgóorluwul raisonné waat politiciens yi waaye population bi jël seeni matuwaay jël seeni matuwaay la lu ci waay war def ko lu ci waay wax wax ko fekk defuñu loolu mën nañoo bis ba nañoo bett boo xam ne violence bi fi am dina metti dina metti lool moo tax ñu war a góorgóorlu par parloo gi ñu bàyyi ko di wax dëgg wax dëgg ngir yàlla rek ku tooñ ñu la yaa ngi tooñ ku jaar coon ñu ne la jàtte ko yoon wi loolu moo mën a tax Sénégal gi jàmm am fi continuer fi am jël na continuer di fi am ñaan borom bi tabaraka wa taala mu kon ñu continuer di ñu suturaal eh, def ci suñu réew mi jàmm xol yi yàlla def leen mu leer ba bon mu jug fi ndax tooñ moom mën na ànd ak jàmm yàlla yàlla na fi yàlla jëlee tooñ waaye yàlla na fi yàlla jëlee tooñkat yi ñuy tooñ yàlla yàlla wax seen xol bi ba ñu gën a wëlbati gën a mën a eh, def lu baax ak defu njub Euh, ñi nga xam ne tamit ñoom nañu tooñ yàlla gën leen a doole xolub muñ euh, xolub muñ ak ndëgër laay ba nga xam ne ñoom li ñuy xeex yàlla jële ko fi ñëpp bokk nag ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf ngi am mbégte lool di la jaajëfal ci waxtaan wu am solo yi waxtaan wu gànjar yi nga xam ne làmboo na njëriñ yu yaatoo yaatu ñu mën ci jël ay bind xàmmee lii politique dégg dëgg dana mën koo jëriñoo waaye tamit xàmmee lii ay gàllankoor ak métidal nu mën koo sori ndax addina moom euh, donte bari na yëngu-yëngu mën nañoo def lépp ci dal def ko ci teey di ñaan yàlla defal na dégg ku jëriñoo di sant bu baax na ci yitte ji kawe ji ndax bokk nga ci ñi nga xam ne ba ñu gëstu jee ñëw nañ ngir baaxi ko seenu nit saa su nekk su la kippaango gi yittewoo yaa ngi ciy dox ay jéego ngir tasaare ak yaatal li nga xam ngir bokkoog ñoom waaye ñu di jaajëfal imam xam na jaay bu baax a baax moom nga xam ne dañ ko waxee woon ci ubbite gi rek yitteem saa su nekk mooy tasaare xam-xam moo tax tayyiwu ci xàddiwu ci yokkatu ci waaye tamit sonn ci ndax aw yiw moom kenn du xeeb te moom yi xeebul mboolem xeet yi nga xam ne di bàyyi ko ci xam-xam donc lay santaat bu baax di la gërëm di ñaan yàlla nangoo ñu suñu koor wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alxaq sall ñu leen di nuyu leen di siyaare bu baax ngi nuyu sëñ di xalifa ci waxtaan yi nga xam ne def na ko ci wàllu violence wane na ne violence dafa ànd ak politique violence dafa ànd ak société dafa ànd ak doomu aadama ci ni ñuy màggee ci ni ñuy tëralee seeni gëm-gëm ñaare dafay indi lii di violence wàllu ethnie mën na koo indi wàllu gëm-gëm idéologie mën na ko indi wàllu diine mën na koo indi waaye jiite jëfandikoo force jëfandikoo doole jëfandikoo koom-koomu société bi bëgg ko aakimoo kenn du wax dana koy indi waaye def ko foofu dama am lu lool fi laaj mooy ne ci jamono bi nga xam ne dañuy wax état de droit ñu am loi boo xam ne moo ñu war a ñun ñëpp kenn bañ a am benn pouvoir boo xam ne da ngay mën a def lu la neex te dara lu loolu su fekkee am na pour man violence war naa wàññeeku loolu ku nekk xam na ni doomu aadama dafa fonk boppam dafa bëgg dominer. shaacir ba ne ne yadlimu baaduna baadan muntu kaanu qaala zulmul insaani lil insaani ne ba àdduna di àdduna ba léegi e, nit ñi dañuy tooñante ku man sa morom dóor ne na doomu aadama yàgg naa tooñ doomu aadama doomu aadama yàgg naa bëggoon a doomu aadama loolu nag mooy indi violence léegi nag bañ a jox nit ki benn pouvoir bi ñu am loi boo xam ne ci lañu tënk ñun ñëpp ci jamono bi pour man yooyu mën na fee dindi violence bi wala mu wàññi ko lool ñu bañ a wax rek ne violence dafa ànd ak doxalinu société wala dafa ànd ak dafa ànd ak politique dama yaakaar ne shay un walij shay un taariq fii walaysa asilan fii dama gëm ne man ne violence bi lu ci dugg la lu jarax la doomu aadama bi demee bakkanam demee sañ-sañam bañ a demee ci doxee ci kaw gi kaw luwaa moo koy waral waaye nekkul loo xam ne par force da cee war a am mu doon laaj ci fenêtre boobu eh, nga indil ma ci eh, lu gën a la yaatu fa mel ni xaw ko junj ci sa audio yu mujj yi jërëjëf ñu la sant di la gërëm bu baax ci ité bi nga xam ne am nga ko ak woote woy woy su suñu woote alxaqu sabit jërëjëf xalifa aboubacar ndiaye waaleykum salaam wa rahmatullah ustaz na waaw waaw xam nga dafa am ay termes yu bari ay baat yu ñuy jariñoo lu ñuy jariñoo lu bari di ko wax di ko répété yenn saa yi nag baat yi baat bi doon moo fa nekk waaye dara nekku ci biir euh, yu mel ni état de droit état de droit moom dëkk yi nga xam ne ñoo ci àddina bi te fa bariwuñ mën nañ leen di état de droit signe bi ci njëkk. mooy réew moo xam ne kañ wax ne mooy premier ministre chef du gouvernement ci système ci réew yi nga xam ne dañoo am système parlementaire wala ñu ne président de la république mën naa jël son tey jii ca ngoon nga benn juge boo xam ne daanaka ni ñi xamuñu ko te ji wax ja sànni fële mooy dëkk yi nga xam ne képp ku moo xam premier ministre la bu jiitu gouvernement kaw na ko xam dëkk boo xam système parlementaire lañ am wala foo xam ne système présidentiel nañ yor président de la république heure bu heure bu jalgatee waxtu woo xam ne jalgati na dinañ ko yóbbu justice mu wujj euh, dëkk yooyu mooy dëkk yi nga xam ne mooy lañu ñoom la ñu tuddee dëkk état de droit ndax justice bi dafa indépendant waaye di def liggéeyam guddi ak bëccëg ñëpp nag li ci teg seen bët nga xam ne moom kàttan ak yooyu moom àggul ci jalgati ba ba seen biir àgg ci justice dëkk yooyu mooy état de droit dëkk boobu suñ fa àggee suñ euh, fu dëkk yu mel noonu fu mu am société yu mel noonu euh, mën nañ commencé ci dëkk yu bari loolu am na fu muy États-Unis am na loo xam ne état bi xanaa ci politique waaye lépp loo xam ne dafa ci politique intérieure bi président ñëwul cee jalgat yi dara euh, le pays am ak yeneen dëkk xaw a xam ne daana moom euh, état de droit dëggantaan am na fa dëkk yooyu nag violence politique surtout violence physique bi nga xam ne rey nit wala jàpp nit rek yóbbu ci kaso ba denc yu demee noonu foofu moom daanaka loolu dafa am eh, yéen a xam ne sorte de violence bu ñuy wax ci violence waaye nag bokk la yi nga xam ne moom dañuy xam di gàddu jaas yi da gàddu fetal di dóoranteeg di rayanteeg ku la neex nga jàpp dugg ci biir kaso bi stock bi boobu dafa am moo tax eh, wax ji suñ ko waxee mais eh, politique dafa ànd ak violence Euh, c'est relatif dafa mel ne rek suñu borom tabaaraka wa taala suy wax ne doomu aadama dafa dafa bëgg yiw doomu aadama su aw su nekkee ci bànneex day daal di bàkku defe ne moo ko jox boppam waaye su nekkee ci wu xar rek si war mu nekk ay xat rek mu daal di bëgg euh, Euh, daal bëggee caa rek maanaam loolu du doon aadama yëpp waaye ñu ëpp ci nit ñi ñoo demee noonu société yi euh, il faut ñu dellu ci histoire al aqdul ijtimaai yi nga xam ne li ñuy al aqdul ijtimaai yi waaye ñu tuddee le contrat social euh, ba ba nit ñi dajaloo bëgg créer état nit ñi dañoo def ku nekk da bàyyi dara. ñu ne kat su fekkee dañoo bëgg dugg société bi te jàmm rek am fi ku nekk da ngay bàyyi dara suñu bàyyee dara ñu créé ab état su ko defee état boobu nag moom ñu féete kaw ñun ñëpp ñu nangu ko ko topp ci suufam su ko defee ñu mën a am jàmm paix mën a am paix sociale mën a am moo tax aqdul ijtimaa am aqdul ijtimaa ba mu amee nag évolution dëkk yi dañoo wutee ñu ngi seen évolution gaaw na ba àgg ci yenn benn degré boo xam ne daanaka yenn tooñ yi yenn tooñ yi ak yenn jalgat yi mënatu faa am waaye fa am dëkk yoo xam ne ñoom daanaka bu fekkee ne jamono yi ñuy dañ doon wàññi suñuy yi euh, aqdul ijtimaa yi euh, contrat social boobu dafa mel ni jamono nit ñu bari ñoo xam dafa mel ni ci état bu lañ toll ñun suñu état yi dafa mel ni ci jamono yooyu toll maanaam jamono yi ñuy waajee woo woote nee nañ dajaloo def benn contrat social ñun dafa mel ne euh, foofu lañ toll ndax. Euh, jeng gu jeng jeng gu am suñ dëkk yi ak genn tooñ capacité tooñ ay nit am ko fi di ko tooñ te dara doon ci fekk loolu moom mooy tax violence ñu ne violence moom moo gën ñoo taxaloo